est-ce que tu sais que man dama fi mu nekk nii en réalité dama daw Dakar dama daw parce que dama am yermande trop ci doomu adama yi nga xamni chaque année dañ leen dan dimbali mais cette année gaay yi ñu doon jox pour ñu mëna joxe amuñu do leen ko forcer te mënuñ amuñu ko donc situation mo metti ci gaay te manit mënuma gantu xam nga bo joxe 800 personnes pratiquement ces personnes là delsi wat wursi la amo lo leen jox noo leen di wax te sa yow